foofu ñu ne ma hmm. jabet bi la. hôpital wax la loolu. Hmm. ñu bi bi ñu xoolee bi après ñu ne ma dafa yéeg. Hmm. man tamit pour man jabet la. ñu bi. ma xool ma bi. nii daal la def léegi tànk bi liy firnde ni mënoo dox. fu mu ne nii mënuma dox. lu tax du nangu nga teg ko. du nangu sidit ñoo bañ. ñoo bañ. Mm-hmm. ok. bi daal. sama góor moo gaañu woon ma demoon sa tëj ba mhm. léegi bi ma demee si dëj bi ma sentir ne sama fii am na luy métti daal mhm. ma tëdd noonu si suuf mhm. après ñu ne ma jugal jugal jugal après ma jóg ma dem ñibbi après ñu amaat dëj ma dem fa ma demee foofu nag ma sentir mu am lu ma dóor fii lu la dóor mu ñëw fii ci ginnaaw mucc bi xamatuma yoon bi après ma ne taximan bi xaaral ma xam fan laa ne. mu lu la dóor ci ginnaaw. te gisoo ko. lu lu mel ni ngelaw. lu ne ci mhm. sama fii. Mhm. léegi nag bi ma bi ma mu yóbbu ma. Mhm. depuis baax na baax na baax na baax na. ah déedéet bàq bi jëru ko jëru si bi déedéet dafa am ñëwaat rek parce que fi mu jaaree woon buntu boobu laa soxlaa tey rek. Hmm. àll ba. voilà. naa leen jënd bi. sant yàlla foofu TikTok. dafa dëgg. dara waaw. sant yàlla bu wér alhamdulilah. bisimilah naana. bàyyi ko. waaw. waaw. Idaali. waaw moo jógal boppam nag kenn waru koo jàpp. moo jógal boppam nii. waaw tey moo jógal boppam jógal. kenn du ko may loxo kenn du ko may. jàpp moom. oh. demal. ceeb. demal. demal demal demal. demal demal. demal. wax suñu jógul sax baax na. taxawal ma jóg ba jëlaatal ma ñëw parce que génn direct. Mm-hmm. d'accord d'accord ma ko alors mun na la. waaw lu <laughs> doom ji rek laa ma hmm. <laughs> ah. yaa ko fi indiwoon. bi mu dugg dugg def. dañ ko doon jàpp. Ah. waaw depuis kañ mu ngi toog mënul jug. ko mu doog a mun buy dox. dañ koy day bi baa ñu ko mu doog a a dox. tey tey doxal boppam. mooy premier mooy première ñëwam fii. ñëwam waaw jeex na yow yaram bi. Ah, mu ngi commencé oyof. mu jeex na loolu lañ soxla. ayca amiin léegi dañ koy jox garab. su ma doon julli si jàkk damay toog si pied bi si biti di ànd ak gars bi toog. wala ñu dugalee ma seen. mais léegi ndax mënoo dox. waaw. dinañ tànk day tànk ma sëg tànk bi du lem tànk bu lem lank bu ma sëgee. waaw maanaam ma sigi fekk nga il ma sigi na bu yàgg. Mm-hmm. si biti nag laa doon jullee. Mm-hmm. mais léegi si premier bi. ngay bokk si ñëw fii bi ngay ñëw fii loo yoroon. waaw beekee laa yore beekee. beekee nga yore beekee laa yore beekee. ah. dañ ma doon doxee mais léegi gisuma indi sa bopp dañ maa daan indi <laughs> waaw mais léegi maa indi sa bopp. léegi indi sa bopp. jógal taxaw. jógal taxaw mu xool léegi maa indi sa bopp dañ maa daan bàyyil bàyyil moom kay day taxawal boppam. taxawal boppam jógal taxaw. ok doxal ñëw si man. ne ko nii nii la ne ko nii. ah illah mënu sax def nii. pour mënul benn bouger dara. du bouger fii waaw si su ma bouger fii dafa mel ni sama sama yàpp bi ngay ngay fees. ah illah waaye léegi daal. yaa ngi demal sa bopp yaa ngi sant bu baax. sant bu baax. sant sëñ xaas. waaw kii kay. ku ma dégg sax ku ma dégg ñooy kii du julli ma ne ko yóbbu la ko sa xaas. ku ma dégg kii dafa bëri problème ma ne yóbbu la ko sa xaas. lan waaw ku ma gis kii du julli ma ne yóbbu la ko sa xaas. est-ce que ku ñu ne kii moom ku ñu wax ma ne yóbbu la ko sa xaas. ku ñu wax ñu ma yéen a xaas ma ne ma ne ma xaas rek mais gis nga YouTube bi dama teg sama téléphone sama bopp laay. di ko xool ba nelaw. ndeysaan ndeysaan ndeysaan émission yëpp laay xool ba nelaw. ndeysaan xool yëpp ba nelaw. sant yàlla lii mooy jaamu yàlla. lii moom amal important. xam nga fekk koo xam ne daawul julli. tey def nga ba muy nekk ca sàppe ya ca kanam. loolu doy na sant te moo ko waxal boppam ci gémmiñam. magum jëmm la. wallaahi azim. loolu doy na loolu doy na cant. doy na cant loolu ndeysaan ndeysaan. bu ma xoolee mu ne ma yow yi da nga soxla ngeen ba ba mu fees dell nga topp si hôpital yi di dem rek. waaw loolu la ku nekk jaar ku nekk jaar ku nekk ñëw jiw jiw bi mais bu ñu wax man man xaas kii. wallaay kii rek man de hôpital doy na boo ba léegi xoolal feebar naa avec trois ans. xool ba léegi ordonnance bindalu ma ordonnance ma naan naanum benn garab hôpital naanum dara xaas rek. xaas rek xaas rek. ginnaaw yàlla tey xaas rek ginnaaw yàlla moom rek waaw. Mhm. xool bi dafa set. xool dafa set ndeysaan man su ma ko xoolee sax su ma ko gisee rek sama xel dafa dafa dafa. oh day daal keroog xool gi xam ku ma indi fii ma xaw ma ko. sama doom bu góor ay seex laa am kenn Assane jabar moo xool ci YouTube mu gis mu ne papa mu ñëw mu ne papa mu ne ko ah. am na benn ku ma gis fa dañuy xaas kaay dem foofu ñu xool ma ne yii baax na bàyyi nañ toog garaaw lu yàlla def muy loolu baax garaaw mu ne ko garaaw parce que boobu waaw <coughs> man ko garaaw bàyyi bàyyi rek lu yàlla def du noreel mu ne déedéet kaay dem kaay mu yenn fii indi fii ndeysaan waaw événement mhm. keroog ma nekk ma dama am sànq keroog ma nekk quatrième dafa am benn waay mu ñëwoon ñu woo ko nag mu bëgg dem si tàng tàng bi mu nit ñi fi fekk dafay bëri day bëri day bëri mhm. nga nit nga am patience gëm nit ki mhm, mhm. parce que lu nekk boo ko gëmu tamit du dem jërëjëf feebar da ngay am patience da am patience gëm nit ki dama ko keroog bu ma ñëw ba ma xool ba ma xoole ma ne lii dina wér dégg nga ma ne ko baax baax ma ne ko baax keroog bu ma waxee loolu sama xel dafa daal. parce que fu ma nekkoon ah. Mhm. ma doon wàcc ay conteneur di daal. ndeysaan ah di wàcc ay conteneur presque chaque weer. Mhm. dinaa jaay mooy ñaari conteneur quarante ay fëgg jaay laa jaay chinois laa la liggéey. Mhm. di dem Touba di jënd gerte def yëpp. di àndal chinois guddee bëccëg gis nga. fu mu toll dara. nit yoroo bor si àll yëpp tëdd tëdd ak moom yëpp dem. ñépp dem. ndeysaan nga ñëw si xaas. nga ñëw si xaas mu dimbali la. te yàlla tax faj la. doxal dem doxal dem doxal dem ñu xool. faj la te yàlla tax te lii mënoo ko woon. ah.